Lamine Diop Lamine Diop New Vision Rufisque euh, nekkoon candidat ci élection locale yi ñu weesu n'est-ce pas waaw euh, bokk aussi ci mouvance présidentielle bi di jàppal loxo kii di président Macky Sall ak ñi mu àndal ci wàllu politique euh, balaa ñuy gën a yaatal dañuy dikk sa mouvement une nouvelle vision Rufisque sànq sax ñu ngi koy jaawale que bu Omar Cissé di vision Rufisque est-ce que nekkul nii danga ko plagier non Omar maa ngi koy nuyu monsieur le maire maa ngi koy nuyu bu baax. moom yëkkatil micro bi tuuti maa ngi nuyu waa Tëngéej yëpp di nuyu monsieur le maire Omar Ciss aussi parce que suñu papa la malgré que bokkuñu ay camps yu ñu far man ak moom ñu doon jëngante si élection yi ñoo bokk benn bureau de vote bu ñu voté man ma gagné école bi yëpp tëj ko jël caabi ji def sama poste xam nga loolu. moom mu gagné Tëngéej yëpp tëj ko. def ci poche am non non mu gagné wul Tëngéej Omar Ciss Sonko moo ko dimbali. Mhm. du woon dex euh, yeewi askan wi ngelaw li. kon du am dara day sonal boppam. Mhm. Mhm. maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Marina waa Thiawlène ma maay président ASC Thiawlène aussi may nuyu waa Thiawlène di nuy waa Marina di nuy ñëpp di sant waa Tëngéej yëpp di leen gërëm di ñaan yàlla li ñuy wax fii mu nekk loo xamante ne lu xaj ci boppu nit ñi la lu tamit nga xam ne kenn du si mer ñoo xam ne Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk quoi. Mhm. te ñun ay ndaw la rek yoo xamante ne dañuy dugg si politique te li ñu si dugal mooy gis jafe am si réew mi. Euh, rawatina suñuy dëkk maire yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekkoon. xam nga di def loo xamante ne lu anormal la ñun dañuy soobu si si si géewu politique bi. te yàgg nañ def ay social ak ñëpp moom la ñu xamee. moo tax ñun ñu soobu si géewu politique bi. yàlla dimbali nañu dem nañ ay élection muy suñu première élection ma am deux mille et quelques voix. ñi fa nekkoon ay maire yëpp maa leen wàccee daanaka. parce que fii école bi nga xam ne moo leen. doon yéegoo quoi si mais yàlla moo dogal lool mais yéeg naa parce que askan wi votel nañ ma. xam nga ngay moo tax ma wax quoi. non falu ma mais li ma am moo daax a falu parce que agent municipal bu am problème ñëw si man woowu pour ma wax si. mais est-ce que nekkul yaa yàqal président Macky Sall. kan yow. man bi may dem élection. parce que waa Benno bu dee dañoo am seen i candidat yow nga bokk ci mouvement bi am candidat. Hmm. bu dee ni sa 2000 voix yooyu dañ ko joxoon Benno Benno day gagné. non man bi hmm. hmm. man maa ngi demee si bannière gëm sa bopp. parce que boobu comme yor naa sama mouvement mouvement bi yaatu na foofu ma bëgg a waaye yeewi askan wi seeti nan ma docteur Omar Cissé maa ngi si télé. Mm. seeti nan ma pour ma nekk seen candidat si est bi mais man maa bañoon parce que boobu dama bëggoon xam man lan laay posé si Tëngéej ndax euh, samay militant wala nangam ak nangam xam nga. gars yi est-ce que réccu ko après parce que sànq nee nga au grand Omar Cissé. waaw euh, bu nekkee maire Sonko moo tax est-ce que àndoon ak Sonko gënu yomb ci yow. tey jii ba vision bi nga am pour Tëngéej. nga mën koo jàllale. non man man li ma li li ma gëm mooy que ne doomu aadama bu ne. Hmm. yow da nga war a dëggal sa bopp. Hmm. taxaw Sonko li mu def nii c'est c'est très normal. Hmm. ma dama gëm nit ku dëggal boppam gëm boppam taxaw. man loolu laa def bëgguma kenn yóbbaale ma. moo tax ma demal suma bopp dem si mbañeeru gëm sa bopp bu bugaan. parce que bugaan la yóbbaale. non bugaan amul kenn foofu bugaan ñun ñoo ko yóbbaale parce que bi muy lim. mu ngi limaale li mu am dëngéej te loolu ñun la. kon gaa yi batawuñu pour Bougane da ngeen bokk ci gaa yi dóor Bougane. déedéet kenn dóorul Bougane. utiliser gëm sa bopp utiliser image Bougane Bougane moom Bougane Bougane moo ñu utiliser. Hmm. comprendre nga xam nga tey bu fekkee sa mouvement. bu hmm. fekkee yow sa parti danga bëgg mu yokk hmm. yaatu ci benn côté bi. comprendre nga da ngay xool ndaw yi nga xamante ne askan wi jox nañ leen benn gëdd bi. yow nga dem ànd ak ñoom ñu demee si sa manière pour que mm-hmm. ëllëg nga mën a taxaw lim loolu te moom mm-hmm. loolu boole na si ci bilan am mm-hmm. te alors que bokkul si bilan am ku mel ni monsieur le maire Alioune Mar maa ngi koy nuyu moom si mbañeeru gëm sa bopp la demee man ma demee ci mbañeeru gëm sa bopp moom mu nekk est euh, mu nekk ouest ak ville man ma dem est mais yéen ñëpp seen particularité mooy après les élections da ngeen fa bàyyi Bougane man des fois dama ci xaw a yërëm Bougane quelque part parce que non mais mais moom Bougane xamoon na ne ñun demuñu pour moom mais est-ce waxoon ngeen ko ko avant. si mais lépp waxtaan la fii amul lu ñu nëbb. mais avant laa la wax maanaam bi ñuy tëgg bi boo leen ko waxoon loolu peut-être. non coalition xam nga problème bi mooy. maanaam mu ngi mel ni rek dama deme si turu Walfadjri. Hmm. mais taxul ma bokk Walfadjri mais dama fa demee noonu la demee. mais est-ce que mënoo dikkaat Omar nga baal ma. Mhm. ci nan la àndam ak Bougane juddoo. xam naa bu moytu bu waxee loolu. loolu dina gën a leer. waaw léegi man sama ànd ak Bougane. waaw nu mu soqee ko ni mu soqee dama dama bi ma créé mouvement bi ñuy liggéey ci wàllu social may jël ay élèves depuis 2017 maa ngi dugal ay élèves ren jii maa ngi ci 257 élèves. ñoo xam ne maa leen di defal inscription gratuite jël leen xaaj mois xaaj euh, année bi dama koy xaaj. sa parents yi ñooy fay moitié man ma fay la moitié. c'est bien loolu comprendre nga loolu depuis 2017 maa ngi koy def. léegi ñëw maa ngi subventionné ASC ak yëpp. léegi nag bi ñu jógee nag politiciens yi ñëpp xam ne dëkk bi yëpp ñu ngi naan Lamine Lamine mais il fallait que ñoom tamit ñu xool. koo xam ne moom la ñuy àndal pour que gox ba mu dëkk mu mën leen faa may benn poids bi mais man dama ne damay demal sama bopp élection du ma buux benn benn maire. Mhm. maire laay xëccu comprendre nga après si la gars yi ñëpp ñëw yeew yi ñëw PDS ñëw xam nga waa mouvement présidentiel ñëw mais dama ne leen man du ma leen jiital man si kanam laay ne après bi ñu ñëwee tamit Aline Mar suñu papa Aline Mar moom mu waxtaan ax man ne ma man ville laay xëccu comprendre nga. Euh, te aussi soxlaa naa pour ñu ànd ñu liggéey ma ne ko man est laay xëccu comprendre nga mu ne ma kon mën nañu ànd si noonu lañ àndee waxtaan ak bugaat bugaan tamit xamal na ne moom élection présidentielle la jëm. Hmm. bugaan moo ñëw vers yéen. ah si mbañeeram lan ba ñëwee mais moom moo ñëw. ah wala Alioune Mar. non buga Alioune. bugaan moo ñëw moo mooy intermédiaire bi entre yow ak bugaan. bugaan moom moo ñëw. nga maanaam moom moo bëggoon parteem am ay tànk yaatu. leer na def na. noonu la affaire bi ah. demee. ñii ay dóorkat lañ. xam nga man yéen man euh, bugaan dama ko yërëm. Hmm. parce que lii ko dal Tëngéej gi moo ko dal. Pikine moo ko dal ci ay Médina. Hmm. yéen ñëpp loolu ngeen ko def. Hmm. peut-être que ni bugaan yéen euh, yow mii avant que bugaan di ñëw amut leen loo xam ne mi tekk nga ko ci wàllu politique. kan la man yow. ça ah, laaj ma demande ma boo nee 2000 voix yi yow boo nee 2000 voix yi 2000 voix yi boo ko bàyyilee sa bopp. bëgg ci moom moo ko Bougane la. alors que 2000 voix yooyu drapeau bi aussi. non 2000 voix yi mu wax bu àndutoo nag ci gëm sa bopp doo ko am. du ah. waaw yow xam nga yow leer na la. leer na la ni bi ngay doon def say campagne gëm sa bopp nga doon campagne moom nga doon jiital di wane nii Bougane nii et cetera yooyu nga doon def. man donc nag léegi bu fekkee da nga dem ba am 2000 voix bëgg a wax ni 2000 voix yi man la man la man la du yow quand mais ça. waaw est-ce que xam nga ne dóorkat. waaw dóorkat. waaw day xàmmee dóorkat yi. ah comprendre <laughs> benn. ñaareel bi si ah. ñaareel bi mooy. waaw ah, yow la parce que déglu nga rek non ça moom moom wax ji parce que moom moo ko. dóorkat yi xam na dóorkat ma dóorkat. léegi yow nga nangu nga di dóorkat nga. non ma boo ma nee ay dóorkat ngeen. waaw léegi nag man dama lay dama lay leeralal. waaw moo tax ma ne la dóorkat d'abord si yow. waaw day xàmmee dóorkat yi. waaw mais est-ce que. waaw bugaan la àndewoon ak ñun dañu doon jéem a dóor faf gaa yi dóor ko waaw wala déet. Ah. nañ xool si loolu. yéen da leen doon jéem a dóor nga tey tey boo xoolee ki nga dóor mooy ki nga xam ne moom moo ñëw jox la xaalisam. jox la ay otaam. waaw jox la léppam ne la campagnal jox la turu partem pour nga campagne pour moom. waaw hmm. man benn benn leader joxuma cent franc man maa financé sama bopp sama campagne. bugaan jox la maa jëlal sama bopp sama si télé laay maa jëlal sama bopp samay hmm. nga lu yow benn oto. àndandoo tur bi rek a fi ne bi te tur bi intérêt bi Bougane moo si am intérêt. Hmm. parce que moom mooy taxaw ne gañe naa Tëngéej. commune nangam gañe naa fi falu yow yaa ci ëpp mais non falu gi xam nga mooy lan. Hmm. man li li li bi ma soutenir président Macky Sall. Hmm. benn sortie laa def. pourtant école bi ma voté. jox naa ko fa mille cent quatre voix. non ci législative non non yi yow mii yaa ci jariñu xam nga lu tax nga jariñu parce que léegi yow dem nga ci kii mais da nga da nga ne man maa dem léegi loolu nga dem encore pour jaayaat ko jaay kat président Macky Sall koy jaay. loolu moom ngay jaay. man soxlaaw ma dara si président mais loolu ngay jaay. non jaay jaayu ma man. président ah parce que da ngay wax ko am naa. nangam ma wax la benn affaire saa. waaw man dew ma si président Macky Sall dew ma si Omar Ciss. dew ma si Ousmane Sonko ñoom ñëpp ñoo dem vers man. saa man foo ma dëkk xam naa ko te dama ko téye. yow man politique gu. yan condition nga ànd ak Macky Sall. non condition yi ñu àndee mooy. élection dafa passé. waaw leader yëpp ñoo seet sama pour waxtaan ak man. pour que ñu dem ci élection législative mm-hmm. bi ñu ñëwee man su ma mbooloo mi nga xam ne yàlla dénk na ma ko ma toogaax ñoom ñi ma seet sa ñëpp ma bàyyi ba jóge voyage ñëw na leen diw seet se na ma diw seet se na ma waaye président tamit recevoir na ma mm-hmm. léegi PDS lii lan ma wax Yewwi lii lan ma wax mm-hmm. président lii la ma wax man it lii laa leen wax comprendre nga léegi nag yéen yéenay tànn parce que yéen a tax nit ñi xam ma yéen yéenay fan moo leen ci gënal ñi ñi nga àndal nga wax ñi ma àndal mm. télé laay waxee léegi bi ñu waxtaanee ñoom ñëpp ñoom ñu gis que ne li ma proposé président Macky Sall commencé na di ko def ñoom ñu ne kon nañu ànd ak moom soutenir que ci élection législative. Mhm. Mhm. ñu dem soutenir que ci élection législative. boo xoolee sama école man. bi ma defee bi ma voté. Mhm. école boobu rek la président am mille cent quatre voix. waaw mhm. mais dañ leen faa gañe. te benn sortie laa def. mais dañ leen fa gañe dañ leen faa gañe. mais li daan dañ ñu gañe tëggee. mais man mais yow mais yow mais mais yow foo dem ñu gañe la ba noppi. dara waaye li ñu gañee du dara. non non mais mais xam nga tey ngay doog a jóg si ay élection man la la la ma gars yi gañe man xam nga maa leen njëkk a gañe. xam nga kii mooy mbëri yan mbëri yi ñu ñu xalagu daan jóg naan kurbañ bi demeewul noonu daf maa frolé. ñi ma bokkaloon géew bi daf maa frolé. ñi ma bokkaloon géew bi <laughs> ñi ma bokkaloon géew bi mm. xam nan kan mooy dóoree. mais mais mais kii mais la mais la dóore préparé nga question bàyyi ma bàyyi la. mooy est moom euh, gënul woon comme mu ànd ak opposition bi comme ñoom Ousmane Sonko ak yooyu surtout si jamono ji ay jeunes lañ yow tamit jeune nga avenir la est-ce que loolu gënul woon pour nga dem si président. xam na xam nga la mooy problème bi man képp ku may àndal day fekk nga def loo xam ne si dëkk bi ah, man defuma ko fi. d'accord ah. euh, Lamine. loolu la problème bi Lamine. Euh, Ousmane Sonko def fi lu ma. Bougane bi ngay ànd ak moom lu ah, na maison. gars yi si liggéey muy fay. ah président jooni euh, euh, bëgguma wax sax ndax. président Macky Sall lan la def. président Macky Sall. Ah. li mu def si réew mi. ah non non waxuma lu mu def si réew mi dafa nekk président ko élire pour mu nekk booy defal. booy kii nit dafa am lu muy teg xam nga boo nee Bougane sax nga tegal ma loolu dama naan Bougane privé la nekk xaalisu boppam la jël investir ci réew mi du dëgg. mais tey président Macky Sall eh, lu tax nga ànd ak moom si jàmm yow ba mën a tijji sa lii toog fi tey di wax président jàmm jooju mu dox tey ah ba Casamance ñëw nu songañu jàmma ji mu dox ba dem ba dikk bi ñëw ah liggéey si dëkk bi loo xamante ne lu nu gis la man ma def onze pays d' Afrique. Mhm. après élection législative yi wër Afrique. Mhm. ba ñëw ah li tax man ma soutenir président Macky Sall man gis naa ko. xam naa bi xanaa demoon Rwanda. non. <laughs> bi la Bougane Ndiaye ba nga jar nga mën a. Ah? taxaw ni Macky Sall ngay jàppale. Ah, pourtant njëkkee woo ko woon. xam nga luy problème bi. Ah. xam nga la mooy problème bi mooy man. dama xeex ak bépp leader bu nekk biir Tëngéej yor sa doole yor xaalis yor poste yor lépp ma xeex ak yow duma la. yaa may dégg léegi Lamine ñëw dëggal suma bopp loolu ay duma lii may daanu mel ni yaa non non mais mais loolu foo daanee foo daanee sa ñoogu daanu de loolu moo neex ba pare mu ñëw taxaw di fëgg dënn naan ki naan niñ ma dóoree mettiwul nga école boo xam ne fa la Mbaye Jacques Diop feu Mbaye Jacques Diop yàlla na ko yàlla yërëm xaar rek àjjana ñu suñu pa ko fan la gañe bo tey tey école boobu école boobu Mbaye Jacques si boppam sax masul tëj école bi mm. si histoire benn lamin Diop moo ñëw gañe école bi yëpp tëj ko def caabi yi sans poche d'accord léegi léegi Lamine man dama bëggoon tuuti rek te yow mooy sa première élection yaa gën a nekk ndaw si candidat yi mm. mais loolu ndam la. yaa ngi bàkk de loolu victoire yaa ngi bàkk léegi Lamine Lamine Lamine d'accord lamin yow yow kañ nga ànd ak président Macky président Macky Sall maa ngi ànd ak moom. si mhm. élection législative bi ñu ko seeti jee mu recevoir ñu ñëpp ñu toog. mooy yi nga doon wax. Euh, voilà ñu waxtaan. non boobu du staff bi sax. ok boobu ñun leader yi nga xam ne ñu ñoo fa nekkoon génne ku mel ni ay ñoom Sega ay Malick Miriko euh, Arouna Sarr ñoom ñooñu. ñun ñëpp Doudou May sax ñu recevoir ñu. bi ñu recevoir mhm. man ma wax ko jafe-jafe yi d'accord mais que tëngeej problème bii laa ñu am ak bii ak bii. waaw dama bëggoon a xam à peu près rek date bi nga ànd ak moom xam nga lu tax may laaj loolu. Mhm. Euh, jamono ji ngay rejoindre président Macky jamono jooju ñu baree ngi daw di génn APR ñenn ñaa ngi dem ci yeneen parti yi ñenn ñi dem ci Sonko ñeneen ñi dem fi leen saf yéen ngeen tànn jamono ju metti pour nekkal ci président Macky. choix boobu pourquoi. te ñeneen nekk loolu mooy gëm sa bopp xam nga tey gars yi bu ñu defoon li ma def. bu ñu non en fait dama bëgg xam. nan la la convaincre. ba mu jaral la yow en tant que jeune. Mm. nga bàyyi fi yeneen parti nit ñi di daw dem dem ci président Macky. waaw moom li ma convaincre c' est facile. parce que daa def ma gis. comprendre nga mooy yi lim fii léegi. mooy li ma fi lim te xaajul boo doon lim li président def si réew bi xaajul xam nga président bi ñëw yokk wàññiwut loolu ndam la pour sénégalais yëpp ndam la pour ñëpp parce que ñun soo so ma ne seen président bu ñëw li muy wax dégg moom président bu ñëw waaw ah. yokk te wàññi woo ah. comprendre nga hmm. loolu mais dafa am yu bari yu wàññeeku loolu lañuy wax lan moo wàññeeku démocratie démocratie ba dafa wàññeeku non loolu loolu liberté bi nit ñi liberté bi ni nga xam ne moom la nit ñi amoon ci jamono jamonoy Abdoulaye Wade amatuñu ko lan moo lan nga tuddee liberté parce que gis nga léegi li nga xam ne moo fi am bu fekkente ni bi àndoog président Macky Sall booy sëqat ñu naan la taral ci kaso bi ku àndoog moom lépp lu ko neex def gis nga fi ñoom Ahmed Suzanne Camara taxaw ci plateau ne nañu rey diw ñu tëj leen nga gis keneen ku wax moyen de loolu ñu jàpp ko tëj gis nga yu bari yoo xamante ni bii doxut ci dëkk bi léegi xam nga la moo am solo voilà léegi nga ne xam nga la moo am moom foo ko teg mooy te yow ñuy jàpp ñëpp ay jeunes lañ comme yow waa mais est-ce yooyu waaw est-ce que jeunes yooyu réglé nan kon man ni ma réglé. yow mais dañoo gis yeneen jeunes yu déréglé yow nga réglé ka. non mais dañoo yoo xamante ni ñu ngi wax pire que ñi nga xam ne mooy. benn leneen beneen nga di wax sital nga ma Ahmed Sidjane Camara waaw. léegi su député taxaw na ci assemblée nationale daal di wax ne nañu rey euh, ku kiiwul ànd ak ñu rey la dugal la ci géej gi. waaw léegi député moom. yooyu yëpp loolu assemblée la ko waxee. waaw mais ah. amul benn daan bu dal ci kawam. waaw léegi xaaral wax la nga assemblée la waxee loolu. waaw Ahmed Suzanne Camara wax na léegi sitel ma keneen koo xamante ne wax na leneen loo xam ne président. non yow yaa ma war a sitel kañ. non non non yow boobu de. yow yaa ma ah? wax la mu wax wala nit dof ngeen wax. wala keneen. Mm-hmm. Aliou Diouf non non même nit doo fa tu peux en parler ñun amuñu problème mu. nit non non ñun amuñu amuñu problème ñoom mais dama ne dañu gis lii gis lii. yéen amu problème ak kenn. waaw dama ne yéen xam nga da ngeen ma laaj. pour ma tontu leen da ngeen may tegleel jox ma ay exemple yu bari. jox nañ wax gis nga ko. cest à nga ak sëñ bi bu dee nii da nga nekk. waaw quelque acteur ko quand même. mais tey jii presque cent trente jeunes ñu ngi ci kaso bi pour diverses raison mhm. ñoo tooñ ak tooñ ñu. justice moo koy wax mais jamono jooju ñu leen di jàpp. ñu bari danoo jàpp ni ñoom ñu ñu bari danoo jàpp ni ñoom Sonko bi ñu àndal rek moo jur loolu mais ñu ànd ak président Macky Sall. Mhm. sañ lañ def lu ne wax lu ne ci réew mi te dara du leen ci fekk te lool lu ñëpp teg bët la aussi. man maa ngi ni président laay soutenir te sañu maa tooñ kenn wala ma saaga kenn. yow taxoo ñuy wax comprendre nga ma dama lay wax Ahmed Suzanne Camara Sonko la waxal mais na ko yóbbu si yoon. non mais dossiers yi yëpp dossiers yi yëpp dama lay non non non c'est-à-dire dalay dalay dalay ci information bu dee si information. dafa des mooy. man yëgul li xew voilà maanaam do bari na ci dossier yi ngay dégg yëpp voilà ba ci ay reetaan ci internet. Ah. ak procureur moo ñëw def autosaisine autosaisine boobu muy def ci nitu Sonko yi est-ce que munu ko def. ñu ci ñu ànd ak man xam nga man la laay bëgg. Hmm. lii gars yi naan ay wax bu dofee ñi ngay dégg dofa na hmm. man damay bëgg soo may wax danga ma naan diw mii lii la def lii lañ ko téye moom nangam nangam moo taxaw ay ñaar waxuma li mu wax ci Sonko damay wax li gën a garaaw li mu wax ci Sonko mën nañ ko traité peut-être politique la entre deux acteurs politiques yoo xam ne mais ñaari ñaari soldat dañ fi faatu hmm. kenn xamul lu leen rey moom mu ñëw taxaw ne xam na ko kooku procureur da ko waroon woo ngir mu leeral waa léegi nag xam nga la mooy affaire bi te pourtant am na ku ci bind di euh, Fadilou Keita ñu jàpp ko ba tey ji waaw mooy li ma la wax te moom bind rek bind rek la def poser ay question waaye doo ma bàyyi ma wax ah, ah. xam nga tey ki nga xamante ne moom mooy Ahmed Sidane Camara wax na li mu wax comprendre nga wax ak Sonko Sonko na ko yóbbu ci yoon benn ñaareel bis bu waxee ne ñooñu faatu moom mu am fit ne xam ne ñi ko rey ah, ñooñu dañ ko war a woo moom yoon da ko war a woo. lu tax woo bu ko bu ko loolu yoon la mais du man man du man. maa seetlu loolu non mais mais bu dul yoon nin siy kaase ni ñun ñëpp nag na na na ab député jóg comprendre nga dem pelante ka. yow da ngay wax yoon mu leeral mais loolu man du ma si da ngay wax da ngay wax waxi jàmm. Hmm. te jàmm ci réew mi ñëpp danoo jàpp ne li ko mën a indi mooy président Macky Sall bañ a doon candidat en 2024. yow ban po lan mooy sa position. xam nga la mooy sa position. Hmm. gis nga constitution bi li mu may président Macky Sall gars yi dañuy juwaale droit décision. ak devoir ak ak droit. ah na lay président waxoon. ne constitution bi tëj nañ ko. si laa jëm Ismaïla Madior Fall waxal ñu ko. ma dëkk Tëngéej di sa dëkkandoo. Hmm. ñetti yoon te ñu may moo tax ma ne la. ñëwal moo tax ma ne la. Hmm. dañuy jowaale ñun. Ah. décision ak droit. comprendre nga hmm. président si moment yi muy wax loolu moom loolu la décidé ne moom lay def. comprendre nga loolu la wax ne moom la décidé moom lay def. léegi nag droit bi yoon li mu ko may muy constitution bi nga xam ne moo ñu tënk. est-ce que loolu la wax. nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. de cinq ans. non cinq ans la ko ah, ko foo gis bi génneel ko cinq ans la wax. génnee ko mais léegi lan moo tax lan moo tax yoon bii président Macky Sall ne mandat bi mandat bi mu nekk moom. dañ ko wàññi sept bi dañ ko wàññi def ko cinq ans. ci ñu ne ko mënu ne. ñu mm-hmm. ne ko mënul de. mais yow comme voyage. 84 la yow comme voyage. paa nga. man yàgg naa laa seetaan ngay topp la sànq yow li ñu war a wax daa bëri. mais yow comme xam saa. mais <laughs> yow comme <laughs> comme yow yaa ngi ci politique bi te euh, wax nga ne. <laughs> président Macky Sall daal xam nga lan mooy wax ji. du yoon may na ko mu def man euh, euh, mandat bi di ñëw mu bokk ci élection. Mm-hmm. Barthélémy Dias wax na ko mii ngeen kaasal tey jii wax na ko. comprendre maître du ndooy wax nag te constitution bi loolu la Sonko lu mu wax lan la wax lu mu wax jaaraat fi na président mën na mën na doon mën na doon mën na demaat élection da nga may génneel fu mu ko waxee ak fu mu ko liggéey loolu wax jooju ba tey ni ñu ko gën a xam Barthélémy je l'ai yow bëgg ngaa nee nga yow neel yow bëgg ngaa dégg neel yow bëgg wax parce loolu moo gën a génn Barthélémy man dégg naa ko gis naa ko ah, mais pour Sonko dama la kaa génneel sama téléphone bi ah tamit waaw ah, dama euh, may ko euh, des ci temps bi bare may ko mu génneel ñu ko génneel Sonko de waxuma keneen Sonko lañ la <laughs> moo ko xëy waaye tamit non man sax dama feneen laay génne ko parce que man lim lim voyage bu lay de <laughs> waaw nekk ñu fi di seen ay saa dëgg li nga wax li nga waxoon ne da nga voyage lu bari pare <laughs> la ngay waxal lay mm-hmm. temps problème temps la am moom li waxoon ne wóor na yàlla ak yoru ko voilà eh, kii eggaleel eggaleel xaju si xaju. xaju si. mais man li ma la wax mooy comme comme moom voyagé na lu bari. lii muy xool di nga génne fukki maam bi mu ne rek. di nga génne fukki téléphone waaw eh, léegi ku am mais kaay léegi wuy ma. Euh, ma baal naa la ko léegi. léegi léegi léegi non non baal naa la ko. man dañ wax may seetaale. non baal naa la ko léegi yow léegi pap moom sa temps li ci des euh, moins de quatre minutes la. quatre minutes waaw moins de quatre minutes parce que jox naa la trente sax nag tey. nañ tegal téléphone yi ñu eggali ci question réponse yi. saa bàyyi leen ko bàyyi leen ko quatre minutes. saa bëggul ma wax moo tax mu naan bàyyi leen ko laaj ma dinaa si tontu. <laughs> na dem aca génneel. laaj ma dinaa si tontu nag génn waale parce que man. Euh, euh, damay génn ngir yàlla di leen ko. déedéet ko saa bu ñëwal rek day génn Barthélemy moom waxuma mais Sonko mu man li ma gis ne day dafay génn lu bari li mu wax ne dafay génn lu bari mhm. euh, voyagé na ci pays yu bari xam nga expérience bi nga am xam-xam bi nekk jeune en même temps aussi mhm. léegi foofu moom si voyage yooyu ak xam-xam boobu nga am <laughs> ah. yan yan yan yan. man de affaire bi laay sa référence affaire bi xaju fi de parce que kan mooy kan mooy sa référence politique ba nga xam ne ba nga dugg si politique. ba ba tamit beneen téléphone li ñëw nga man Badara Sène Badara Sène Mamaya da ko fàtte waaw Badara Sène Mamaya foofu Badara Sène Mamaya koy ñaanal yàlla ko yàlla yërëm xaaral nga moo mooy ki nga xamante ne. waaw léegi Sonko moo ko wax léegi garaaw moom moom na réglé na réglé affaire am en même temps mu tontuwaat. situation moo ma dugal si politique c' est ah. moo ma dugal si politique man mooy sama idole si politique. keneen du sama idole si politique merci ça. ok ça xale bu pare ngay waxal. sa tegal dañ ñu déglu. Mm-hmm. Mm-hmm. tegal. le président Macky Sall si il parvenait à décrocher ce second mandat de pouvoir. briguer un troisième mandat en 2024 en considérant que l'article 27 n'était pas applicable à son premier mandat puisqu'il ne pouvait pas être un La constitution du Sénégal, à l'heure où je parle, elle parle de ñaari mandat wu juróom-ñett. waxul li nga wax déedéet waxul li nga wax c'est que bàyyi di dagg. waxu nit nit li ngeen def c'est dangereux xam nga c'est que ñii def. dañuy dagg manipuler ngeen di def c'est man ma xam ko groupe Assane Mesere la bokk. gis nga réew mi manipulation lañ nekk di manipuler Assane moom. di manipuler Assane lañ dëkk. Assane moom hmm. sama soppe la. groupe Assane Mesere yi comme ni ma léegi nag xaar Sonko leeral lool Sonko nag gën a leeral mais phrase bi dafa koy mais phrase bi dafa continué am nga jël ay ko tipi xam nga luy problème bi waaw mooy saa jël defet Hmm. boo jëlee defet da ngay nangu. kan moo jël defet ba non ma wax. kan ma da nga ne aw ma ka. génneel naa la léegi ma da ngaa dagg waxu jàmbur. non dagg nga waxu jàmbur. ah kay da ngaa dagg waxu man dagguma de. da nga ko dagg kay seetaan ni ma lay seetaanee noonu laa seetaanee ñeneen. fii lañ fi dagg fii lañ fi dagg bi Sonko di wax naan bu waa ji jëlee réew mi dañ ne leen. kenn dootu fi gàmmu ñu dindi loolu yëpp naan kenn dootu fi gàmm. kenn dootu fi màggal. dama ne Sango ñu naan dégg ngeen li muy wax. Sango yow seen leader boobu ngeen war a wax. buy waxati balaa moo génne di wax nay xool li muy wax parce que yow mënoo bëgg a jiite am réew. saa yoo waxee ñu yóbbu la vaar <laughs> <laughs> ah, saa yoo waxee ñu weddi la te gis naa Baara Ndiaye moom aussi muy def loolu Baara seen waay ji toog fii mënoon naa ko fee fekk tey. Mm. comprendre nga mu def la gis nga gis nga gis nga. Baara Ndiaye lu mu def. non dégg nga ma rek saa saa jeex na temps bi jeex na. gis naa non gis naa dégg nga. non man maa ko wax. parce que arrangé wu la arrangé wu la xanaa dinaa ñaan dinaa nuyu ñi nga xamante ne ñoo ma kii waaw léegi tamit mooy mooy sama kàddu mujj ah. sama kàddu mujj maa ngi ñaan ci palaato bi waaw maa ngi ñaanal Sénégal yal na fi jàmm sax te tamit di rafetlu lii ndax yàgg naa di leen seetaan di ñaanal Sidi Lamine yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana moom ku xeexal Sénégal la mm. ñu nekk ay ndaw di ko seetaan si yu bari di ñaan dëkk bi yàlla na fi jàmm yàgg di ñaanal waa Tëngéej rawatina waa Cëwleen gi nga xam ne falaa dëkk mm. maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ak waa New Vision di wax na tamit mm-hmm. nañu góorlu réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk mm-hmm. ku si nekk am nga droit far fi la neex mais loolu lépp bu paasee nañu xam ne ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. Mm-hmm. élection yi fi passé bari na yii ñëwaat nii day passé waat rek. comprendre nga may wax Cheikh Baara Ndiaye. Baara Lee. nii leen ko mu bàyyi meew. xam nga daa benn affaire bu fi am. non ma ñu fi daa am benn affaire moo lay wax. bàyyi ba léegi xoola gis nga xam nga testé woon nan kii bi nu mu tudd bi ba xam ne fii am na pétrole. du testé woon nañu. waaw léegi gis nga Cheikh Bara meew na ba boo fa demaatee meew nga fay fekk. waaw waaw d'accord merci beaucoup. yow tourné moom nekk fi nekk vraiment damay bëgg. moom bu ñu koy woo lañ koy tudd maanaam Omar Omar Omar Omar Omar temps ñu tëj. Omar tëjal tàggatoon. léegi di la gërëm bu baax di la ñaanal. non non peut-être. Euh, copain la. wax na wax na léegi non non baal ma léegi Lamine Diop ah. Euh, nouvelle vision Rufisque ñu koy jaajëfal bu baax. di la ñaanal nag yaa am yéene ci politique tan que docteur Oumar Cissé maa ngi fàttali bu nga koy fekk Kumba Lamb nit ña fa nekkoon bariwuñu pourtant mouvement la yoroon rek tey mooy meeru Tëngéej du ñàkk ni bis dina ñëw nga doon yow tey ñu ngi lay ñaanal aussi tey suñu borom rek di nga suuf bu sutantee dañ kaa jàll bul xebal kenn dara. yow ëllëg li ngay doon xamoo ko yàlla suñu borom sutura moom sama kii la la ah may def ay waay lan te